ay euh, euh, lu toll ci fukki réew ak juróom Ben pour waxtaan ci euh, mbirum contrat yi nga xam ni état yi ak <coughs> entreprise yi dañ koy def ci marché public yi ci biir marché public yi dañooy fàttali ni état yi ñooy ñi nga xam ni ñoo ëpp lu jënd maanaam ressource comme comme état bi yëpp li ci ëpp solo mu ngi dugg ci marché public yi donc il faut que nit ñi bàyyi ci xel trop. am ay professionnels yoo xam ne daañu mën a doxal ci yoon pour éviter que état di perte xaalis et que projet yi nga xam état am na ko ñu mën ko di ko réaliser ci délai yi nga xam ne moom la ko état soxlaa pour loolu nag formation daf ci am njëriñ maanaam tàggat nit ñi ba ñu gën a xam ci mbir mu nekk naka lañu ñu war a doxalee ba nga xam ne bii un li ñu war a jënd du ñu fay lu ëpp li muy jar ñaar su. Euh, euh,

dañoo seet benn spécialiste boo xam ne bii mu ngi jóge ci benn entreprise bu ñuy wax FIDIC ay contrat yu ñuy wax FIDIC ñooñu ay ingénieur lañu yoo xam ñoom ñoo dajaloo seen biir ba créer structure bu mel noonu ak ay spécialiste ci droit donc mbir mu nekk ñu joxe ci ay yoon ay indication ni nii ak nii ak nii lañ ko war a doxalee soo ko maîtriser nag dañ la may bés boo xam ni yaa ngi def ay marché yoo xam ni yu am solo la yoo xam ni ressource xaalis lañ ci def yo xamni également dafa am in bo jëlé tali nga defar tali yak ngeen gis ñu defar tali tay ñeenti at après nga ñëw fa gis suuf rek nga fay gis do xamni sax fi tali mës na fi jaar donc yooyu dafa nek yo xamni ci état fofu lay perte xaalis bu bëri fi ñu yaakaar fa la perte bi nek manam ci passation bi ñu ne ki mo gëna cher wala ki prime li nangam nangam c'est vrai loolu il faut ñu veiller ci té loolu Sénégal def na ci djégo yu bëri wayé nak ci biir exécution bi mise en œuvre bi foofu tamit perte bu bëri daf fay nekk maanaam suñ defaree route boo xam ne war na durer 40 ans mu durer 40 ans mais doo ñëw 10 ans après nga ni mais fii est-ce que tali mës na fi jaar kon xam nga ni foofu perte nga fa lu bëri donc contrat FIDIG yi daf lay mën a permettre nga am euh, xarañte bu la permettre suñ koy élaborer ñu mën a seet naka la ñuy mën a defee contrôle marché yi correctement te bu te bu coow juddoo tamit danañu xam ni contrat bi prévoir na garantie euh, euh, euh, préserver manam Ars état bi ba nga xamni bi euh coow lu am rek ñu né état mo mo mo mo, mo, moo wala nangam nangam donc xam-xam euh groupe expert bobu dañ ko am.

Euh, li ñu fi dajale atelier formation la euh, ay représentant banque mondiale du kuréel bu mag bobu di jàppale réew yu bëree bëri ci àdduna bi koy def nag institut bi ñu di IRCOP institut de régulation de la commande publique ci lépp lu jëm ci exécution travaux notamment travaux fidiques. FIDIC euh, solo si c'est que réew yi nga xam ci la nekk la yo dañu am ay jafé jafé ak li tubab di woowee défi ci walum développement développement nak boko waxé moy sunu suñu réew yi dañu nekk ginnaw ci lu balé bëree bëri bokk na ci ci walum travaux d'infrastructure donc bo formé ñi nga xamni ñom ñoy

dérouler après jumtuwaay yi gëna rafet yi gëna a pour que ñu mëna exécuter travaux yoy ci anam bu rafet ngir ci ginnaw Afrique mëna am développement socio-économique bo xamné ne la askan wi di di xaar euh, depuis waaw loolu dëgg la xam nga 24 mars bi ñu génn sénégalais yi def nañ seen tànneef ci wàllum politique programme bi nga xam ni moom la ñu wax ni mooy bi gën ba voteel ko bokk na ci kuréel wala bànqaas yi ko tënk lu ñuy woowee bonne gouvernance bonne gouvernance nag mooy doxal mbir yi ci yoon moo tax ñu indi slogan bi ñuy woowee jub jubal juganti nga xam ni xam-xam bi mën na fi nekk waaye xam-xam bi bu fi nekkee te mbir yi teguñu ko ci anam bu sell it doxalin bi dina dina xaw a sooxe loolu moo tax euh, bon gouvernance nekk euh, pàcc bu am solo ci sunu programme te loolu lañ bëgg a dugal ci xeetu gestion euh, contrat yi nga xam ni moo ñu fi dajale tey ak ci yeneen anam yi nga xam ni ci la réew mi di jaar ngir mën a jëm ci kanam